te murit ak tijaan benn te ñun dañuy présenté ñaari kër yi eh, comme ni ko sunu sëriñ xaaj mi ci waxee nee nañu waa kër Sëriñ Tuubaa murit ak tijaan benn la lañu war a taxaw ndaxte ñun suñu gan lañu suñu dëkkaale lañu suñu xarit lañu yéen nee na man kaana yuminu billaahi wal yawmil aaxir fa dikrum dayfa man kaana yuminu billaahi wal yawmil aaxir fa dikrum jaara man kaana yuminu billaahi wal yawmil aaxir fa qul xayran aw liyasmut kon léegi bu nu taxawee fii ñëw fekkee bis bi nga xam ni mooy bisu Serigne Touba bi mu ñëwoon fii gànnaar dégg nga muy bisu Sarsara bi nga xam ni fii dañ ko jox fii dañ ko fay liggéey bi mu liggéey jox ko wër ma ko ma fa mu ne war nañ ñëw taxawoo wax alhamdulilah ñun ay sët lañu ñëw fii sant leen sant sunu bopp sant euh, réew mi sant Sénégal ni nañ ko diggante Sénégal ak Mauritanie ni ñu ko mën a tegteel mooy bët rek ñuulaay bi ak waxaay bi kenn mënu ko takkali kon jàmm na ko yàlla def fii Mauritanie def ko ci Sénégal def ko ci kër yi islam bi gën a yaatu tariqa bi gën a yaatu ñëpp bëggante li ngeen di wut fii moom leen wut ñu tamit Sénégal ñu ñëw suba Sénégal ngeen teertunu ngeen ñu gis leen ngeen gisunu ñun tamit bu ngeen jógee fële ngeen ñëw fii fekk nu ay mbokk ay xarit ay dëkkaale lañu lépp Eh, eh, tamit maa ngi leen di sant bu baax eh, di leen di gërëm seen taxawaa bi ngeen def ndaxte yéen a yore presse yéen a affaire yi fii nag ma fàtte Cheikh na Alaaji Baara Mbàkke bi nga xam ni moom moo ñëwoon na fii Sarsara taxaw ci indifi ay projet yu mag a mag moom ak ay rakkam ak ay mbokkam ko ñu koy sant bu baax di sant monsieur Mourtada Boutou di sant waa Touba ñëpp waa Sénégal di wax alhamdulilah rabbil alamin barakallahu fi waa projet ñi ngi taxaw wante yàkkamti nañu bëgg nañu jumaa bi mu pare bëgg nañu kër yi fi bëgg def mu am ay kër yoo xam ni mu am ay daara képp ku bëgg a jàng alquran au lieu muy dem ci dëkk di jàng mu mën a ñëw foofu jàng fa alquran jàng fa xam-xam wéetal yàlla wéetal boppam fa sëriñ bi nekkoon am na barke dégg projet yi gën a yokku ñu defar teen bi dafa lépp alhamdulilah rabbil alamin en tout cas ñu suñu ni nga ko ci def rek wante néew doole rek mooy kii comme ni ko waxee rek serin bi nee na woon bëggoon na jaar jaar sëriñ Touba bu jaa jógee Roosu dem Garak bu ñu jógee Garak dem Xomaat bu ñu jógee Xomaat dem Jarraar yi dem ba Sarsaara yoon boobu la ñu bëgg mu taxaw yoon boobu yëpp bu defee rek nit amatu soxla ci ay ay 4x4 ndaxte mën nañ directement jóge fële ñëw ba fii. waaw ñu ngi wax alhamdulilah rabbil alamin di leen di sant. kii man yi bëri na. Euh, loo xam ni kenn ku amul maanaa koo xam ni woolu nga diinam bu la ko waxul doo ko mën a gëm waaye kii man yi bëri na man nag am na ku moom ci moo soxna wax dara am na benn vie bu ma xam faatu na yal na ko yàlla yërëm mi ngi tudd taqawil beleel waaw nee na papa moo ko nettali bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwee foofu mu fekk. Eh, benn fami naar boo xam ni jaboot naar boo xam ni daal bari ñu dañoo tum ranke woon ba ñu nag la amoon moom lañ daan rat waaw bi ñu gisee sëñ bi bëgg ko jox gëddëm ñu xam mooy kan ñu bëgg ko jox gëddëm dañoo jël seen ran nay bi nag bi ñu rendi ko barmool bi fanaan di jooy sëriñ bi yëgloolu mu laaj leen ñu di ko histoire bi mu ni comme rey nañu nag bi bu ñu teqali yeel yi ak der gi waa nañ ko bàyyi noonu yàlla def ñu fanaan di xew ci nag bi suba ci suba si nag wi dekkiwaat loolu taqiwul balal moo ma ko nettali te nee na papaam moo ko nettali te loolu kooku kooku nitu yàlla la te boroom xam-xam la li ma wax xam naa ni dëgg la yeneen kaymaan yi nag bari na waaye comme waxuñu ma ko rek ci ci source ci source euh, nañu yem ci bi waaye ci fànnu zahir moom jamono bi mu fi ñëwee woon lépp li nga xamee ne lënkoon na ci mbirum zahir moom feeñal na ko ba famille di Sidiya yëpp xam ni moom euh, nitu yàlla la xam ni Kanku Fodé la daal Fodé la woon eh, ci gox googu yëpp li amoon ci ci ci wàllu sharia ci li nga xam ne leerul woon ci bopp nit ñi moom leeral na leen ko waaw donc euh, déjà ko ci wàllu zaahir wàllu baatin moom ñëpp xam nañ wàllu baatin kéemaan la ci hmm. loolu mayu yàlla la ku yàlla may mënoo ci dara Eh, ili yaqaad allahu ma lam yakun wa la yakunu abadan li mumkini mayu yàlla la waaw dañuy ñaan yàlla ne kenn ku ne ñaan yàlla rek waaye ku mu may ngeen bàyyi may na ko rek <laughs> léegi mi ngi leen gërëm bu baax yéen le prince nga xam ne moom ànd ak sarsara bi ak euh, seen liggéey bi ak seen taxawaay bi toujours na nga def euh, at bu nekk ci euh, sarsara sarsara moom xewal bu mag la ci ñun waa Mouride parce que sunu sëriñ bi foofu la ñu jël wërdul maaxuud ñun nag sunu maam bi Ahmad Ould Hassan mooy premier murid di jël wërdul maaxuud ci sëriñ bi ci Sarsara kon nag maa ngi euh, gërëm yéen yëpp ci turu euh, sëriñ Sidi Mbacké présentant xalifa général ci Mouride en Mauritanie euh, raïs zawi ci Cheikh Ahmadou Bamba ak la fédération maa ngi njiitu président de fédération de Mouride en Mauritanie mooy moo Diop Diop ak liggéeyam bi ak njaboot na ànd ak moom ak Cheikh Mbacke Mbaye euh, muy euh, trésorier fédération ak deuxième conseiller Serigne Sidi Mbacke ci présentant ak euh, njoboot yëpp ak secretaire général code bopp ak ñi nga xam ne moom seen comité bi ak seen daayira mu nekk fi ci Mauritanie ak seen daayira mu ñëw ci Dakar jóge Dakar maa ngi jiit ci moom Serigne Amar ak yéen yëpp ak le presse ak yéen yëpp maa ngi leen gërëm bu baax ak euh, doomu Serigne Fallou doomu Serigne Mourtada soxna bi ak euh, waa Maatamu Daana nga xam ne moom waa Maatamu Daana doon wax léegi muy euh, Serigne Moulay muy présentation Cheikh El Hadj Misri dañuy gërëm Cheikh El Hadj Misri bu baax a baax parce que El Hadj Misri bi at bu nekk bu ñu ñëw fii ci Sarsara bi moom dañuy daal ni ñun daal bu baax la dañuy defar lu rafet seen rafetaay bi gis nañ ko bu baax a baax ak li nga xam ne moom maa ngi gërëm président. Mauritania Mouhamed Ould Cheikh Al Ghazouani ak e, waa gouvernement Mauritanie bi noonu ànd ak ñoom yëpp dañu gërëmal li nga xam ne moom mooy e, frère président Mauritanie mooy président Sénégal e, Macky Sall da leen gërëm ñaari gouvernement bi Mauritanie ak Sénégal ak xewal ñu ñu def ci Mauritanie dañu gërëm baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah